ci li nga xamante ni moo fi xew tey euh, di commune u Thiès west gannaaw bi école ubbee mu bokk ci commune yi nga xamante ni joxe nañu tey seen fourniture joxe fourniture nag dafa bokk ci ensemble boo xamante ni moom dafa bokk ci liy doxal école ndax école buy ubbi dinañu joxe loo xamante ni moom lañu koy baye dinañ joxe aussi service d'hygiène pour nu wut ay produits yoo xamante ni buñ ko fa pompé pour mu dindi yooyu li ñu naan les sites larvaires ñu taxaw ci ba nga xamante ni école bi dina présenter benn cadre boo xamante ni ñi ko dëkkee ak ñi fay nekk saa su ne dinañ mën a def li ñuy def ak teeyaayu bakkan loolu ñun ñëpp jàpp nañ ci tey li ci mujjoon mooy ñu jàppale école yi jàppale directeurs yi pour ñu jot fourniture pour mën a def seen liggéey convenablement naam ubbi tey jàng tey la ñu wax waaye ñoom defe naa ni sant yàlla rek war nañu ñun ñëpp bi nga xamante ni daan nañ toog ba mois de février di doog indi matériel wala ñu toog ba mois de décembre indi matériel tey au mois d' octobre tey la onze ñu ñëw teg ko indi ko defe naa loolu lu jar sant yàlla la. matériel bi moom mooy li nga xamante ni moom la école gën a soxla muy kaye di bic di CREC loolu ñu joxe ko ba pare boole boolewaale ci école yi nga xamante ni ñoom ay préscolaire la ñu soxla ay cahier dessin ak ay cahier double ligne ñu boole leen ko ci ak ay règle loolu daal bi ñu koy def njënd nañ ko nag jëndin moo xamante ni bi ñu koy laata ndugg waxtaan nañ ci ak kilifa gi ni ko daal dañoo bëggoon nga waxtaan ak say directeur d'école ñoom techniquement ñu wax ñu li ñu gën a soxla bu ko defee bu nuy jënd ñu dem jëndal leen loolu moo gën ñu jënd loo xamante ni duñu ko soxla donc loolu mën nañu wax ni tey li nga xamante ni ñun moom lañ jotoon comme tontu ci laaj bi ñu laajoon loolu ñu ñu wax ñun ci lañ tënku ba jëndal leen li nga xamante ni tey kontaan nañu ñun ñëpp gis nañ ko directeur yi gis nañ ko waaw muy daal au bas mot onze millions waaw léegi nag li nga xamante ni moom moo ci jot a des mooy que ni école moom saa yoo ko tuddee ñu wax ay soxla wax ay problème yoo xamante ni moom liñ koy tontoo mooy daanu dajul fépp waaye daal li ñu mën def nañ ko te it maire jël na engagement ni incha allah li nga xamante ni moom ci moom la wala ci ay service am te mu war a mën a ñëw accompagner ko école moom dina ci taxaw xar ci tànk tobayam incha allah lu mel ni toilette yi ak lu mel ni école yi nga xamante ni miir yi dafa toj école yoo xamante ni seen parquet baaxul seen tableau dafa fissuré wu ñu war a wut ay peinture yu ñu naan ardoisine ñoom it joytu nañu table banc yi parce que table banc yaa ngi damm table banc yaa ngi yàqu ñu ni maire ci commande léegi moom it na ci boole table banc ne serait-ce que un nombre symbolique mu koy def at mu ne du leen ko jàppale mu ko defee loolu dina mën a résorber petit à la gàpp bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir école yi loolu daal moo doon waxtaanu tey bi ñu ngi santaat ñëpp di santaat baax a baax sunu jigéen l'inspectrice euh, de Thiès ville ak équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw ci sunu wet di ñu jàppale di ñu wan yoon di ñu teg ko si ci di ñu jubbanti saa yoo xamante ni ñun def nañ loo xamante ni jaaduwul wala def nañ loo xamante ni du noonu lañ ko war a doxale jërëjëf. mairie Thiès Ouest moo doon joxe fourniture école yi directeur yi. concerné yi donc cérémonie boo xam ne maa ngi ci am mbégte parce que dafa wane ne engagement euh, maire bi ci école sénégalaise bi et engagement boobu bien entendu acte boobu day mën a améliorer les enseignements apprentissage et par ricochet mu mën a améliorer donc le maintien des filles maanaam xale jigéen ñi nu ñuy mën a gën a jàng ci école yi aussi euh, actuellement mun naa naan ne cérémonie octroi fourniture yi ñëw na ci heure am parce que dafa mën a dina gën a mën a alléger donc sufrance euh, souffrance parents yi ndax xale yi aussi mettre xale yi dans de bonnes conditions donc de travail Ah, waaw xam nga rek école moom ah, dafa nekk loo xam ne ah, la qualité c'est un, un horizon à chaque fois il y a toujours des problèmes donc qui sévit euh, effectif pléthorique yi classe boo xam ne dafa am effectif pléthorique dinañ ko érigé en classe spéciale ça c'est automatique ça c'est la, la réglementation plus de élèves vingt 81 élèves war nga ko mën a ériger en double flux ou bien en classe multigrade donc loolu loolu tamit euh, dinañ ci gën a saytu avec les directeurs d'école mais maintenant solution yi solution yi ku ci war na ci jàpp mairie yi war nañ ci jàpp niveau central yi war nañ ci jàpp toute la communauté éducative aussi war na ci jàmm moi c'est ça ma philosophie parce que dinaa ne ñu ngi xaar niveau central yi alors que yow ci sa biir école y a ce problème là tu vas pas croiser les bras di xaar donc il faut nga jog nga saytu tendre la main aux collectivités locales tendre la main aux partenaire moom mi ci boppam mu mën a dégager ay stratégie ci mën a euh, régler problème am bu nekk ci biir école am bi euh, ci effectif pléthorique yi na nekk euh, ya a des problèmes partout ci ñaari côté yëpp am na ay euh, y a des manques de classe loolu war na ko mën a war na mën a indi et ensuite des manques de table banc aussi war na ko mën a indi et là je pense je pense que je pense que aussi à ce niveau là le maire de Thiès Ouest moom jël jël na ci quelques engagements pour venir à bout là aussi il faut le saluer jël na ci yenn matukaay yenn engagement yi pour mën a régler yenn problème yi table banc yi ci biir commune bi laal aussi. ci 3000 3397. Euh, waaw euh, liñ ci fas yéene def mooy euh, actuellement dossier yëpp jëbbal nañ ko préfet. jëbal nañ ko préfet amoon na benn CDD boo xam ne euh, mairie yaa nga fa tous les maires ils étaient présents et que ku ci ne dina seet ci biir commune am nu muy def ba mën a réglé problème boobu waaw mën a régler problème boobu ci kayitu juge ji avec l'organisation des audiences foraines ak ak ñi lëkkaloo ak président tribunal bi gën ñoo oyofal mbir mi pour que xale yi mën a am kayitu judd maintenant le fait que ministre bi autorisé élèves yi ñu dem defi examen pour que après ñu wutal leen kayitu judd euh, baax na parce que c'est pour en fait euh, bañ leen bloquer bañ a def examen bi c'était ça maintenant c'est à nous les autorités ak euh, ñun parents d'élèves yi surtout ak euh, euh, communauté éducative yi suivre pour que ñooñu au moins ñu mën a am kayitu juddu balaa beneen examen bi di leen dabaal. tul nii li ñu li ñu li ñu lu ñu gis ci école yi mooy xale yi ñëw nañu ñu su bari ñëw nañu waaye ba tey fourniture yi ñu war a jàngee jumtuwaay teewul am nañ ñoo xam ne defar nañ seen saagu doom waaye am na ñoo xam ne ba tey ñëwaguñu xaw ma dañuy xaar li xaw ma problème mu koom-koom la ak problème mu. ak problème mu jamono ji euh, loolu moo tax li ñuy jot réglewul problème mu xale yëpp waaye quand mën na mën na leen defal tuuti le temps que ñun ñu am benn retard bañ retard sunu sunu sunu sunu su sunu liggéey comment dooroon nañ di liggéey depuis le début loolu moom dëgg la mais toujours constaté ne xale yi am na ba ay problème matériel donc lii lu mu tuuti tuuti tuuti mën na dooleel parents yi. le temps que maintenant ñu bañ a tardé parce que année scolaire bi <laughs> il faut il faut ñu gën a ñu gaawantu il faut faire vite il faut faire vite donc amuñu benn temps bu ñuy perte il y aussi am na am na aussi résultat yoo xam ne dañ ko war sauvegarder et loolu mënul ñëw lulul ci quantum horaire bu ñu respecté bu am bu am solo donc amuñu droit xaar pare nañ jot lii bu ñu ci jotee nag nañu fexe mottal la ci des ñu commencé liggéey bi. loolu mooy indi problème effectif yi école bu ci nekk yokk nga au moins dix pour cent demande vraiment demande bi am na solo trop. Euh, classe yokkuwuñu euh, maîtres yokkuwuñu mais xale yi ni nga ko constaté xale yi yokku nañu loolu moom ay classe spéciale rek la ñuy créé ay double flux wala yeneen wala yeneen ak sur surcharge école yi e loolu bu ñu ci deful nànk dafay gën a laal ci qualité apprentissage loolu ñëpp xam nañ ko donc euh, alerte la xaw ma ñu mën a fexee pour yokkat effectif yi yokkat classe yi yokkat moyens yi pour mën a pour mën a jël xale yi ni ñu toll sinon rek dafay jouer ci qualité bi. loolu xale yi kër am kayit juddu liñ ciy ñaan daal mooy xale parents yi euh, ku ci yàlla dogal nga am euh, xale jéemal ci at yu njëkk yi nga gaaw wutal ko kayit juddu wala moo dugg école parce que boo xasee dugg école ba pare ñun duñ ko mën a dàqati day continuer processus rek bu dee ba war examen nag ñu laaj ko kayit te boobaa euh, problème day am ren sax vraiment préfet bi jàppale nañ ci ba xale yu bëri réglé nañ seen problème ba tey ci école yi am na ñoo xam ne ñoo xam ne ñoo xam ne seen amuñu kayit daaw recensé wu na ñëpp nag ba mu dina ci taxaw ñi ngi xaar ñi ngi xaar bon je pense loolu bu ko préfet defee yaakaar naa mën naa mu soulager ci problème lu bare bare bare bare bare. merci beaucoup euh, aujourd'hui ça a été la cérémonie de remise donc de fournitures scolaires de fonds de dotation aux écoles concernées au niveau de la commune de Thiès-Ouest euh, et là je me réjouis de cet acte-là. qui manifeste l'engagement en faveur de l'école sénégalaise de la part donc, du maire et de son équipe de Thiès Ouest. Et cela, vous le savez que ces fournitures scolaires étant des intrants de qualité, va nettement impacter à l'amélioration des performances scolaires des, des, des enfants. Et par ricochet, prolonger surtout le maintien des filles donc à l'école. Et c'est pour dire aussi que tout simplement que c'est venu à point nommé. à ce début d'ouverture des classes, ça pourrait permettre, ça pourrait donc euh, soulager les parents au niveau donc de leur facture donc scolaire. Et nettement, comme vous le voyez, euh, ça devrait avoir un impact donc de qualité pour la performance donc, de nos élèves. Et là, euh, tout à l'heure, j'ai dit au directeur, l'important maintenant, c'est de l'utiliser à bon escient. Voilà. Centaines d'établissements publics, publics de l'IEF de Thièsville et 57 pour euh, les établissements euh, privés, ce qui fait euh, un nombre de 100 et quelques. Voilà. Et, oui, euh, ce qu'il faut noter, c'est de remercier encore une fois l'accompagnement de ces collectivités euh, territoriales dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de ce Ubité Djangate, compte tenu de leur accompagnement en amont. Les classes ont été bien Donc euh, préparer les écoles, c'était bien préparé. Et là, ça nous permet même de, de gagner du temps au niveau du, du, quantum parce que quand on parle de quantum horaire, on va parler des conditions de travail, des conditions d'accès. Et là, les maires euh, de la ville, en l'occurrence le maire de Thiès-Ouest, il a été vraiment euh, d'un apport capital pour la réalisation donc, de ce